jii ma jooy sayxuna Seex Fallu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàlla mbokki julit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu nuyoo ziar Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit ñaanal ko fan wu lool wu xànd ak wér-gu-yaram Serigne Abdul Karim Mbacké makaarimul axlaaq moom Cheikh Mouhamad al Fadal Mbacké ginnaaw bu mu leen ziar leen ndokkeel leen sant leen ci seen taxawaay ci ndigal yi weesu wan mooy am mbégte di yëgal taalibe yëpp ak julit yëpp ak mboolem ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ ci tooleb sëriñ Tuubaa bi ni jot na ndigal ci sëriñam kilifaam sëriñ aboo Baraka Mbakke moom Cheikh Mouhamadal Fadal Mbakke yal na ko yàlla may fan wu lool wu ànd ak wér-gu-yaram ndigal loolu nag jëm ci liggéeyu toolu Madina booba liggéey baatem liggéeyum ndéqi la sëriñ Abdul Karim Mbakke di ko yëgal am di jàmm yi bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn fu soppe man di nekk wala xarit ma ngi la ko yëgal mu ci soññeetem mboolem transporteur yi nga xamee ni mu yu musaana jot ndigal dana ànd ak ñoom liggéey bi ba mu jeex takk sëriñ bi ma ngi leen koy yëgal te leen koy fàttali départ bi nag insha allahu tabaraka wa taala bu dee ci Touba ak li ko wër alxames si ngoon la ñuy départ buntu kër sëriñ Abdul Karim Mbakke Touba Ndindi dem fanaani ca tool ya bu ñu xëyee ci ajjuma ji nag door liggéey bi bu dee Dakar nag ak li ko wër ñoo ngi déparé PA yi ñu daje ca tool ya fas yéene koo liggéey kon mbokki jullit yi mbokki talibe yi kuy soppee wala ngay xarit walla ngay wëlëree Cheikh Abdul Karim Mbacke makaarimul axlaaq jot na ndigal fas yéene ko ànd ak ñëpp muy ndeqi toolu Madina booba tooli Serigne Abou Baraka Mbacke moom Cheikh Mahamadal Fadal kuy ñëwatem na nga àndaale jumtukaayu liggéey ñu deqi ko dajale ko roñ ko yóbbu ko ca dëkk ba ba ñu man koo jëriñoo sëriñ bi nag ma ngi séntu ñëpp tey sant ñëpp ci li weesu wan ñi fàttali leen ko départ bi alxames si ngoon lay doon buntu kër sëriñ Abdul Karim Mbàkke Touba Ndindi bu dee ci Touba ak li ko wër bu dee Dakar nag PA bu ñu xëyee si ajjuma ji door liggéey bi ba liggéey bi mel ni ko sëriñ bi bëggee sëriñ bi ñaanal ñu ñu dellu si waat si jàmm ak salaam toogaat xaar leen ndigal sëriñ Abdou Karim Mbacke ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di séentu ñëpp ginnaaw loolu nag ma ngi yeesal ak jaayanteem ci kanam sëriñ Abo Baraka mbake moom Cheikh Mouhamad al Fadal di ko ñaanal fan wu lool waxand ak wér-gu-yaram waaye di yeesal ay ziaram ak i ñaanam ci kanam Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit yàlla may ko fan wu gudd lool wu xand ak wér-gu-yaram ci barkeb Serigne Touba Xaadim Rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey jii ma jooy sayxuna Seex Fallu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci dunya jooy na yàlla